17 heures 40 sunu gan euh, Tabara Ndoye Ba ñu ngi lay nuyu. Euh, Babacar ñu ngi leen di fay. waaw déggin bi nag euh, neexul lool bu dee écouteur la ak yooyu xëy soppi ko ndax yow yaay ki jiite lépp lu aju ci wàllu commercial ci Sénélec di kër gi nga xam ni moom dénk mu séddale courant bi ci dëkk bi am lu ngeen waajal ci woyofal bi.

Nous ngi remercier aussi invitation bi nga xam ne defal ngeen ko pour ñu mën a ñëw waxtaan ak auditeurs mais waxtaan également ak suñu ay clients yi nga xam ne ñoom suñu raison de vivre. effectivement dafa am ay coppite yoo xam ne koy mise à jour des compteurs euh, ñu war a la norme STS 1 dem euh, dem STS 2. Nous nag bi ñuy commencé compte bi ñuy utiliser compteur euh, prépayé yi en 2005 dafa affilié woon à la norme STS protéger non, nous, le système de transfert de code euh, standardisé donc depuis 2005 nous euh, affilié aussi si association Bobo, objectif de euh, objectif objectif opération de à partir du 15 c'est vraiment d'améliorer la sécurité mais améliorer également l'interopérabilité entre le système de vente des comptes et les différents compteurs parce que boo xoolee Senelec du benn fournisseur rek moo koy jaay compteur Senelec day def day préparer ay spécification technique am def appel d'offre donc ku nekk koo xam ne répondre nga ci spécification yooyu mën nga gagner ça veut dire que on a beaucoup de types de compteurs dans notre parc donc pour une pour améliorer interopérabilité boobu nga xamante ni entre le système de vente et les différents compteurs loolu tam nekk na deuxième objectif mise à jour mais troisième objectif bi de daf permettre d'aller vers un système euh, intelligent intégral c'est-à-dire compteur système client à travers une application mobile donc loolu mooy mise à jour bi naka à partir du 15 à partir du 15 client bu crédit dafay recevoir trois codes les deux premiers codes c'est les codes de mise à jour du compteur

ndax courant bi seer na ba noppi. Babacar xam nga yokku courant wala réajustement tarifaire dafa am processus ma fàttali la ne Senelec dafa nekk dans un environnement normal avec un régulateur qui veille au grain sur ce que Senelec fait donc Senelec amul droit def lu ko neex li mise à jour rek la pour permettre au client compteur am jóge norme STS1 vers dem norme STS2. mohamed Ali Mouba am na loolu Mouhamed Ali Mouba bëgg laaj. madame loolu nag loolu nag loolu nag. dañuy demander une forte implication du client parce que euh, processus bi il faut que client bi impliqué wu bu baax a baax c'est-à-dire avant muy def mise à jour compteur à partir du 15 client yi nga xam ne amoon nañ jëndoon nañ ay code de crédit dencoon ko parce que am ñoo xam ne dañuy jënd denc code yi code yooyu yëpp ñu ngi leen di ñaan ñu chargé ko seen compteur avant le 15 balaa ñuy def mise à jour parce que bu ñu defee mise à jour cof yooyu compteur bi du ko mën a reconnaître ba tax na daal ñu leen di demander ku fi yore code de crédit boo jëndoon avant te chargé guloo ko na nga ko chargé ci sa compteur balaa balaa balaa balaa ngay def sa mise à jour. madame Ba ci ci wàllu wala ci wàllu compteur Woyofal yi ci mise à jour yi dégg nañ ko euh, euh, Babacar wax na ko un peu euh, boo waxtaanee ak nit ñi luñ lay wax mooy que compteur Woyofal yi déjà woyofalul c'est c'est plus cher et puis aussi mise à jour bi bon, ñom day gëna tax yeen gën contrôler euh, lu ngeen di jox nit ñi ci walu kilowatt euh, heure et puis lolu day tax ngeen gëna contrôler et puis euh, wàññi en tout cas courant bi parce que nit ñi lolu lañuy wax nee nañ lu ngeen di joxe ci courant ak tarification bi tolloowul. Mohamed Aliou mën naa ne mise à jour bi du Sénégal café, de sous-région de kessé, ça concerne plus de 500 500 compagnies d'électricité à travers euh, plus de 40 pays et pour plus de 60 millions d'utilisateurs à travers le monde. Donc c'est une norme universelle qui se met à jour. c'est Encore Mais pourquoi les, les, les, populations en perception ni que euh, parce que déjà Wayofal normalement de Wara Woyof, et ils ont les populations la perception que Woyofal bi mo 10. <laughs> non woyofal bi gënul diis en fait incompréhension la rek parce que ku la ne woyofal bi dafa diis bu ñëwee ba si ñun bu ñu ko expliquer peut-être que mais mais lu ñuy ressentir ci kër yi lu ñuy ressentir foo jaar nga dégg ay ay compteur di yuuxu euh, loolu tamit problème la <laughs> non compteur yi yuuxu moom dama leen di wax léegi ne boo bañee sa compteur yuuxu mën nga def le code huit cent douze pour éliminer alarme bi sa compteur dootul yuuxoo waaw loolu moom boo defee huit cent huit cent douze sa compte moom. du loolu moo gën a am solo man li am solo mooy euh, ni courant bi di gaaw a jeex ak nit ñi seen compteur yi di sonné tintet gi foo toll di ko dégg. waaw ni courant bi di gaaw a jeexee nag sa utilisation la bu fekkente ne yow def na say appareil def sa crédit courant bi bu gaawee jeex c'est en fonction de l'utilisation Euh, des appareils appareils yi nga def bu ñu ñuy utiliser courant bi moo tax courant bi di gaaw a jeex. madame loolu loolu loolu loolu la Sénélec madame madame loolu la Sénélec yàgg wax ne waaw appareils yi ñu utiliser bu tàngoor bi ñëwee nit ñi dañuy jëfandikoo ay climatiseur ñiy jàmbat seeraayu courant bi yëpp du ñëpp am ay climatiseur ak i machine yu ñu taal seen kër courant bi day jëkk jékki rek seer daa mel ni da ngeen ko yokk ci suuf te nit ñi duñ ko yëg. Est-ce que des fois il y a une estimation Parce que si vous avez une facture, cette fois 80 000, c'est vrai que vous avez d'utiliser le climatiseur. Si vous il vous amène à peu près la même facture 60 000, 70 000. Où est la logique dans ça mën naa la rassurer léegi ni la. est-ce que des fois du ñu nekk rek ci ay estimation des fois. non estimation jot na Senelec ça fait plus de dix ans ñun fàtte nañ sax lan mooy estimation képp koo xam ne jot nga sa facture c'est sur la base index relevé te am nga possibilité dem sa compteur vérifier index boobu par rapport à index bi ñu la mujjee facturé donc boo mënee lire sa facture dina nga gis ne index bi ñu la mujjee relevé ak index bi ci compteur bi am na am na une évolution waaw am une évolution donc on amul un problème estimation moom jeex na Senelec yàgg na ñun fàtte nañ ko sax moo tax bu ko nit ñi di wax est-ce que mon nañu xalaat un jour euh, bon euh, <laughs> en tout cas vu le contexte nu mel est-ce que baisse courant bi mën nañu en tout cas dans les prochains mois peut-être dans les prochaines années baisse courant bi. Euh, parce que l'on ngeen don wax euh, avec l'énergie qui va arriver euh, courant mais les difficultés économiques ñu est-ce que nga ni c'est possible. Oui, c'est bien possible parce que avec l'arrivée du gaz et du et du pétrole c'est bien possible mais dañuy ko rek si li nga xamné le ministre de l'énergie def une sortie il y a quelques jours annoncé que né dans euh, dans quelques temps il y aura une baisse des tarifs de l'électricité loolu tamit dañ koy rafetlu di xaar également la mise en œuvre naka lay demee di ko delloo nag madame loolu loolu duñ ko gëmagum ndax euh, fii lañ wax ni dindi nañ fi troisième tranche nit ñi foog ni yëf yi di gën a seer troisième tranche woyefal ñu wax ne dañ ko fiy dindi biñ ko dindee ak euh, ni mu demee maanaam dindi nañ ko waaye li am ak li fi daan am benn la yëf yaa ngi ko ni di seer ba léegi troisième tranche bi dindi gi ban ban ban njariñ la am finalement. taxawal ma wax la ñun nak loolu ma annoncé légui dañ koy gëm parce que c'est la haute autorité du ministère mom mo def une sortie wax ko kon nak dañ ko koy nangul di xaar rek encore une fois de plus la mise en œuvre di ko bàyyi aussi ak la primeur pour nous donner les contours de cette de de ce réagissement tarifaire mais daal on s'en réjouit et on attend la mise en œuvre maintenant en revenant sur euh, la la troisième tranche effectivement la troisième tranche dindi nañ ko parce que boo xoolee tey prix bi ñu lay jaayee deuxième tranche moom lañ lay jaayee troisième tranche boo xoolee moom lañ la koy jaayee kon ñu jàpp ne troisième tranche boobu dañ na mais nag boo am na boo dépassé nag léegi sa deuxième tranche nag di nga fay nag TVA foofu la TVA bi di duggee. Hmm. mais prix troisième tranche bi prix deuxième bi moom mooy actuellement prix troisième tranche bi mën nga ko vérifier fu nekk. yifi dafay jaxasoo ci sunu bopp yi sax ne sax comprendre ko. bon que la waaw mais parce que man man comprendre waaye ñu ci askan wi théorie yi théorie ci courant bi euh, ak li xew ci kër yi dafa waaw li xew ci kër yi xam appareil madame appareil appareil appareil électroménager yi xew ci jamono benn ci jël courant moom kay facturation bi moom moom moom mooy coow li. déedéet facturation bi di coow li parce que bu fekkente ne yow am nga sa appareil boo xam ne mi ngi fonctionné depuis plus de vingt ans sa frigo bi fonctionné depuis plus de vingt ans nga bëgg ko branché léegi bëgg si am euh, sax bëgg si sakkanal euh, sa si énergie bu dul nekk parce que appareil yu mag. frigo vingt ans takkatul ci réew mi nag. non non non non ah kañ am na kañ am na de. appareil yu màgget yooyu li ñuy laaj si énergie pour mën a fonctionner dafay dafay bare trop loolu tamit ñu ci ciy euh, sensibiliser clients yi pour que ñu dem ci am na appareil yoo xam ne ça leur permet d'économiser de l'énergie yooyu nañu dem di jëndi euh, appareil yooyu pour que seen ay consommation mën a wàññeeku parce que mm. les anciens appareils encore une fois day tirer beaucoup d'énergie loolu tamit day gaaw a jeexal seen crédit yaa ngi dégg xamuñu yaa ngi dégg ci wàllu subvention bi nee nañ subvention à l'énergie euh, ba moyul dañ koy dindi léegi naka lañ mën a kon wàññee courant bi ba xanaa kay peut-être mu yokku xam nga affaire subvention nag tey taxul ñu ñëw fi li ñu tax a ñëw mooy affaire euh, euh, waxtaan ak suñu clients yi sur la migration c'est-à-dire la mise à jour de la norme STS1 di jóge STS1 dem STS2 loolu moo ñu fi tax bu ngeen bëggee beneen émission waxtaan ci subvention bi loolu yëpp ñu waxtaan see yéen mais c'est dans dañu bëgg ngeen bàyyi ñu ak suñu clients yi ñu expliquer leen naka la ñuy demee si mise à jour bi nga xam à partir du 15 octobre lañ koy def parce que encore une fois de plus su fekkente ne client bi à partir du 15 deful mise à jour compteur am ah problème mun na am su fekkente ne compteur euh, nekk na en panne Senelec war a générer un code de maintenance pour dépanner ko foofu dina am problème de plus que le code généré par le système c'est un code boo xamante ni stf mais compteur am defagu ko mise à jour de léegi donc ce code là ne sera pas reconnu par son compteur Moi, je ñuy insister encore une fois de plus sur la mise à jour à partir du 15 client vous jënd di nga trois codes les deux premiers codes c'est les codes de maintenance et le troisième code c'est le code de crédit donc loolu encore une fois de plus nous ngi euh, demande client yi ñu si bu baax a et que question boo xam ne mën nañ ko poser nañ ko poser. Euh, on a compris ah madame le message est déjà passé mais courant bi mom duñ ko waxtaanee rek di yem ci ay changement de code li ci laxasu yëpp lañ ci wax parce que euh, bo boo euh, tay ji euh, euh, woyofal bi euh, sawaay da ngay yéemu sax dal ndax compteur yi lan mooy différence nga jënd ko tay jël dix mille def ko ci mu jox la nangam euh, ci ëllëg sa nga jënd beneen dix mille mu joxe lu gën a tuuti euh, xeetu problème yooyu la nit ñi am. waaw parce que c'est une facturation par tranche xam nga njëg gi la koy jaayee en première tranche lu wute nag njëg gi koy jaayee en deuxième tranche ma fàttali la encore ne deuxième tranche la yem troisième tranche njëgu deuxième tranche bi dañ la koy jaayee mais TVA bi dafay dugg boo jëndee sa premier achat du mois lan moo fay dugg mooy. Euh, la redevance bi nga la location du compteur la taxe communale bi nga xam mairie ko la ca des ni transformé ko jaay la ko jox la ko crédit mais boo accès euh, nañu fàttali ne limite première tranche bi sa quatorze limite de boo fa àggee euh, le client a 150 kWh en première tranche boo dépassé ces 150 kWh, kilowattheure yaa ngi dem deuxième tranche te prix wu deuxième tranche c'est différent parce que moo gën a élevé prix wu première tranche léegi boo dépassé également le la limite de la deuxième tranche dugg la troisième tranche bi nga xam ne nag quel que soit alpha moom loo jënd prix wu deuxième tranche la mais di nga am euh, la TVA bi nga xam ne moom lañ lay facturé et ñun ñëpp xam nañ ne TVA bi état bi moo mais am na ñuy am na ñuy jàpp ni itam nu ngeen di fonctionner. Euh, da ngeen euh, bari et puis aussi euh, peut-être charge sen lek def 10 lolou bokk na ci lutax courant bi tamit metti lool ci citoyen ça n'a rien à voir loolu du ay charge sen lek di am wala les charges du personnel wala entre autres gis nga les charges du personnel c'est c'est c'est un pourcentage très négligeable par rapport aux charges moom kañ li ñu war a wax mooy il faudrait que ñu am des d'autres sources d'énergie aller vers le mix énergétique en euh, gaz en pétrole bo xamanteni permettre les coûts de production pour que nous mëna vers une euh, baisse des tarifs etc. parce que bu fekkente ne diversifier les sources d'énergie prix bi à la mais les charges du personnel n'ont rien à voir <laughs> n'ont rien à voir encore une fois de plus euh, jotewul ak dara li nga xamante ni moom euh, le coût de l'électricité le coût de l'électricité encore une fois les tarifs sont fixés par le régulateur il y a un processus pour que nous mën fixer les tarifs de l'électricité hmm. am na am na jamono ji euh, xayma guñ fi waxoon ni mi ngi am ci ci loola euh, jëm ci facturation bi loola fu mu fu mu toll mm-hmm. Oui, euh, je, je, veux parler de, cette étude-là, euh, une étude euh, sur la facturation. est-ce que vous avez bu c'est une étude la e, le régulateur la commission de régulation du secteur de l'énergie moom moo wut ay auditeur pour que ñu saytu le système de facturation de Senelec loolu tamit ñu ngi fi boobaak léegi ñu ngi recevoir auditeurs yi lu ñu laaj ci information ñoo ngi leen koy jox lu ñu laaj ci document ñoo ngi leen koy jox xam naa ñoom it def ñu paree CRSE ki nga xam ne mooy régulateur bi dina révéler étude boobu lan la lan la lan la euh, conclusion bi étude boobu CRSE dana dana ko révéler mais pour le moment pour le moment c'est une étude qui suit son cours donc ñu ngi nekk di travailler ak CRSE ak auditeurs yi nga xam ne. Hmm. mandaté na leen. yéen nit ñi dañuy fay seen courant fayaale leen fayaale leen yéen waa Senelec fay liggéey tax du ngeen fay loolu tam loolu moom ba kañ. Babacar loolu tamit il faut que mu arrêté parce que ñu nit dañuy fay courant ni ngeen di fayee courant. nan ci naka madame. ñun dañuy fay courant actuellement bu ñu jëndul crédit duñu consommé suñu kër waaw. peut-être loolu lu bees la non non non non ça toujours été comme ça peut-être que prix bañ ñu koy jaayee moo gën a moins cher tuuti prix bi nga xam ne ma ngoog nag ma ngoog. mais c'est normal parce que yéen fu ngeen di liggéeyee am ngeen fa ay avantage. déedéet feneen ak feneen fu ñuy liggéeyee am ngeen communiqué bu ñu jàllale fii ci sunuy mbokk ak yooyu dañ koy fay. <laughs> ah waaw mais daal société bu nekk ku fay liggéey am na avantage yoo xam ne moo liyewu ah société boobu muy si ndox mi muy si faneen ak faneen ak faneen am nga fay avantage. mais nag dama lay xamal léegi que né ñun nous avons un euh nous avons un manam suñu quota dañ ko encadrer bu ñu jëndee tey prix bi bu ñu dépassé quota bi nga xamné mom lañ ñu jox dans le mois nous allons acheter l'énergie au plus cher manam au tarif le plus cher. Hmm, moom la ñu koy jëndee. baax na bu ñu dépassé quota bi nga xamné mom lañ ñu autoriser autorisé dans le mois leneen lu fi top dans le mois ñu koy di jëndee prix

insister aussi sur le fait ne ku yore ay code de crédit yoo chargé bi na ko chargé avant le 15 parce que après le 15 compteur bi boo defee mise bi du ko reconnaître. jërëjëf donc ñu ngi ñu ngi demandé client yi daal ñu veillé si loolu bu baax. te ñu impliqué aussi processus bi nga xam ne. ñun ñoom lañ koy defal. dégg naa la nga naan ku dencoon sa code balaa la 15 dugal ko mu gaaw mbete denc dafay am fii gars yi ay 2000 ak 3000 la ñuy jënd ñaar fan mu jeex du noonu <laughs> mais am na ñoo xam ne ñu ngi ay avant le <laughs> responsable principal commercial euh, Sénélec jërëjëf Mouhamad euh, Alimou Ba jërëjëf Cheikh Tidiane. Vous avez besoin de caution sur des marchés publics ou privés? Adressez-vous à la SONAC. La SONAC SA vous accompagne dans l'obtention et la réalisation de tous vos contrats en délivrant tout type de garantie. Caution de soumission, caution d'avance de démarrage, caution de bonne exécution, caution de retenue de garantie, caution définitive, assurance décennale, tout risque chantier et responsabilité civile. Pour plus d'informations,